Sénégal tulsu ku neexul jàllal na leen ay waay ci moom na way ku neexul toog ma fële ay waay sa oto bi ama ko moom moom moom ay waay waay waay yi nga xam de waaw maam booy da ngaa mer ah maam booy nag lay mer xoolal yow yaa ngi dégg lu ma lay xamal dawalal mu gaaw nga yóbbu ma damay defi suppi yaa ngi dégg lu ma lay wax ah. ci Sénégal xoolal li rek non xoolal mer bi yow mer da ngaa màggat a màggat ba kenn xamul looy ndural wax sax mënu ko nga naan da suppi nga naan da ngaa rek sa gërëfaas nii di xale xale dama nga jaamu yàlla moo gën laa la wax nga nekk fii naan da xale xale laa la wax yow mer. <laughs> yow gone gu réew nga man duma sa morom man sa moroomu maam laa yaa ngi dégg lu ma lay wax ah gone gu réew nga yow Sénégal li moo ko yàq dinañu wax sa dëgg ñu ne la dangaa réew ah mais yow xoolal su loolu si woon nag yaa am gën a xam dara sa kaw de mais dama nga jaamu yàlla moo gën nga xam da ngay pël-pëlaaw di sànnee ko di xale xelal bi sa greffage ah <laughs> mais yow xool benn mais yow boo xamul looy juróol non mère mère yow da nga waroon a seetu balaa ngay génn seen kër instant yaa ngi mel ne ku ci ay gént. ku dapal na léegi mu ne ku jàngat na léegi ay waay ay mais du xale xale ay waay loolu dafa ku demal changé tey si loo nekk nag yaa ngi am jàmm yaa ngi fekk bu baax naka waa kër ga mbaa nga laay sa papa nga si la yow loo may doy sax waaw man de eh, eh, yow de dama laa xawoon a dama laa xawoon a xàmme rek ma ma ne la xaaral ma woo la ma nuyu la rek ñu jaama sante. ah kon loolu la loolu la nga may doy yow bii ça va maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax a baax. boo ma xam bari la rakk Sadio Mané maa ngi tudd Ibou Mané. waaw yow doo dégg Ibou Mané yow. Ibou Mané non non non ah kon tax Sadio Mané nga yow sinon nag yaa ngi am jàmm. moi je suis le préféré de Sadio Mané je m'appelle Ibou Mané waaw démb rek laa jóge Cameroun maag Sadio ñoo nekkoon sax ne buñ a ah hôtel bi ñoo bokkoon hôtel bi fanaan quoi. oui mais xam nii nga neex na nii quoi mën na la xoolal yow il nga jël sa numéro quoi yaa ngi ama gën a xam balaa maa delluwaat Cameroun match ñëw match quart de finale yi damaa ko. man saa mas amee saa automatiquement daf may envoyé benn jet privé moom may indi ma duggee fii jet privé Sénégal ba Cameroun yaa ngi comprendre ah mais sa numéro la soxla woon après ñu mën a déggante di sanante yaa ma gën a xam du pelloo waaw man loolu laa bëggoon quoi tamit ah que c'est possible yow sa numéro téléphone est-ce que naa ko mën a am ah bon sama numéro téléphone nga soxla woon pas de souci amul benn problème waaw jëlal bi jëlal moom mun na kàcci Ibou Souare yow foo nekkee rakk Sadio Mané mu ne man rakk Sadio Mané laa la nga wax lépp kaay bu jigéen bi kii day fen day fen laaw day fen pour dégg day fen yow nekkul sa rakk kere mais jaata gannaaw ma rakk Sadio Mané nga ah mën nga fen taw. xoolal kee bu ko déglu dafa dof warul de am dof la yaa ngi dégg lu ma lay la wax xoolal c'est la première et la dernière fois. luy romb nga may woo yaa ngi dégg lu ma lay wax nag bu mu amati c'est la dernière fois ak sa boobu ndaw bi mel ne capuchon. kay yow koy waxal sa boobu ndaw bi mel ne capuchon ah xam yow mi laay waxal mu ne fan bay bëgg a dee mën naa man rakk Sadio Mané la essence war na laa ak say rouge ngay mel ne ku ñaxtu. booy booy pulal laa dajal si mbedd bi ma invité ko noonu mu ne ko yow da ngaa ñu ñu invité la ñu bëgg la invité ci kaw invité loolu mënut a nekk demal nga ñibbi pul la. mais boobu Moussa fëggal fëggal ñu dugg boobu doo fëgg ñu dugg ah mu yàgg de te Marie war saa Marie Ndiago war naa pare affaire yi affaire yi moom mooy xel nii booy yi fëggal ñu dugg booy yow yaay invité d'honneur bi. waaw fëggal ñu dugg lànk waaw koŋ-koŋ waaw kooku kan la ah man la Ibou Soulard ak Moussa sa invité yi ate mu gaaw ate Moussa ñu dugg ba ñu dugg eh, waa Ibou Soulard ala Moussa ça moo ngi si biir noonu ay singom lay jënd pare mu mën di gérer quoi. ah waaw defar naa palaat bi seen palaat bi pare na defar naa ko ba sab na zàpp waaw. aca dem la ngeen toog nu koy indi. yow moom dafa mari njaago na mun laa fay moom kenn mun la fay waaw mais xool ñaan balaa mi gën a neex lekk ba suur ngir laa mën waaw léegi-léegi kon xama dem wala ba suur soog laa ñaanal በምሳሌ የሚያሳደ ላይ ላይ ላይ አማርኛ ጋር ቢቆሎ ሆብኝ ለሰፈ boy saat biong kono degi jam lek na besur boy ah boy mari jago mulu ko fay mulu ko fay boy ah franchement parler yow Tata Mari kenn mënu laa fay Moussa kii kenn mënu koo fay laa la wax waaw daf ko lépp yow. ay yéen ngeen ca yéen a baax yéen yéen a baax yéen sama xarit waaw. Ibou affaire yi neex na wala neexul. yow yow toj nga Mari yow toj laa la wax toj nga fi loo xamante ni mosuma koo lekk laa la wax ah li doo ko toogee moom sax na waaw c'est que. ñaari pooju mbaam xuux lañ ko toggee après ma mariné ko ak beer bi waaw moo tax mu saf sape eh Moussa déglu kii moo way mbaam xuux Moussa Moussa mari ñaa ko dañoo posone ko nag avant ñuy lekk nag dañu ko waroon wax de ah booy yàq mbaam sax de Sénégal tuum su dañuy sama gars maa leen di bége siyaar naa leen bu baax a baax gars yi jarul ma leen présenté xoolal bu fekkee ne te nga abonné te nga bës si kolos bi pour nga bañ a raté benn vidéo. kon abonné. bësal nga abonné te nga liké nga partagé jaajëf waay.